fi mu toll nii fee mu jëm moo gënal fii mu jógee moo la ko wax wala ñu fekk rob bi ngay sëlam ñi fekk rob bi da nga leen waroon a yee da nga leen waroon wax ni leen adduna ngi da leen waroon wax ni li ngeen ni kër kër lay mujj ngi lu mu ci rek dara te rek lay mujj la nga leen wax mu jëm gënal moo ko a fi mu jëm te sëñ Tuubaa waxul loolu wa arxabul asyaai lil amwaat raddun ila dunya la sëñ Tuubaa wax wala soo ayaatan nag sëñ Tuubaa nee na mboolem ñi tëdd ci biir bàmmeel koo ci ne woon pëkk pëkk ni ko loo gën a bëgg mun na del siwaat adduna donte benn minute la du ko xeeb ndax dem na fële xam na lu baax lu muy jariñ te mënta dellu siwaat xam na lu baax lu muy jariñ lu baax ñoo dañu koy liyaat dinu ko kàll ñu néew ci yeewu ñu néew ci yeewu moo tax ñuy doxe ni ñuy doxe waaye dañuy gis ni nax yooyu ñu xam ne saytaane dañu koy nax te it nit ñi li Seexuna Cubb leen doon wax démb mooy nit ñi seen bopp ñoo bëgg ku leen nax boo leen naxul sax duñ fa toog moom koy damay naa leen moom àjjana pare na siraat dajji nañ ko waaw léegi ku nelaw da nga yeew rek yeewoo ji àjjana ñu ne est daal di làmb seen i pos jox la waaye boo ne ku jaamuwul yàlla dem sawara ñu ne kii li muy wax xamu ko ab étudiant la wala ab ibaadu la noonu ñëpp ay ibaadu lañ ci association ba lañ bokkut waaye ibaadu rahman la jaami yàlla képp lañ nit ñi koo leen moomale ku dul yàlla jóom nga nit ñi koo leen moomale ku dul yàlla rek jóom nit ñi benn borom képp lañ am muy tabaraka wa taala booy dund nag amug wér moom ku la neex mën na laa moom waaye booy dee say bokk lay xamante ne waxoo dëgg ñoo yan nga ni fu ngeen dem ñu ni jébbali ko boromam kon ka nga doon wax moomu la ndox yotuñu la ko même buñ ko yoroon sax dem leen sóoli ko lay wax rek yóbbu leen ko fa ñuy wàcc nit ñi kat mooy sóoli leen ko rek. kon mat naa bàyyi xel looloo tax Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne danoo topp te duñu nax moom lañ topp te duñu nax mooy na ngeen ci lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci bàmmeel yi su ngeen demee ci bàmmeel lu ngeen bëgg a tëdd da ngeen ko tëdd ab tëraay nga ca kanam boo xam da nga tëdd ba tëdd loo bëgg loon a tëdd loo gudd gudd gudd fan ko ëpp ci biir te yàlla du jublu ci la wax lu dul lii waxu lu am ñi jëkk dem ñëpp ngi tëdd min waraayim barsaqun ilaa yawma yub'asuun ñu ngi ci barsaq ba keroog suñu borom di dekkal bindee suñu borom dekkalugu kenn boo demee ci sirkul jawaay da xam ne Sëñ Tuubaa naxut kenn noonu kay noo fi nekk di naxante lenn lu ci ne nu xëpp na ko tóor na ko bu ko defee kenn ku ne di yàq yàq ka dañ te li fi ñu doon li ñuy def gëmuñu ci dara parce que nit ñi boo leen di xool ba mu yàgg dootoo xam sax ban saaru nit lañ da ngay tudd Sëñ Tuubaa mi nu boole ñun ñëpp ñu ne xoj di la xool nga tudd am sëñ diw ñu mbëkk yuuxoo yow sëñ diw ma boo ko laajoon lam la defal dula ko wax nga xamni xamatuñ sax li top topp tu ami xamni mo fi dajale nit ñi xamni ku yaakar dal ci mom ko yaakar dang koy tudd nit ñi kenn ko est ce que waaye nga tudd ci am sëñ diw kenn xatu ay dal di bëkk dara te boo ko laajoon lum la defal sa digg ak yàlla rek wax ma lum la defal fum la fete ci aduna wala ci bàttin lan la dula wax dara waaw Seck mooy sama sëriñ yow mooy sa sëriñ te nangu koo roy sëriñ ak imaam boo ko nanguwut a roy amul lu ak sëriñ du boot kenn du yóbbu àjjana ak sëriñ du tungam kenn du yóbbu àjjana gaariwuti kaar bi ñu ci dugal yoon wi ci jëm lañ lay wax te yoon wi mooy jaamu yàlla képp ku nanguwut a yàlla yàlla dina rëq sa ndig wax na ko bind na ko àjjana ji borom nanguwut a jaamu yàlla fu ko way dégg yéene naa la ko bay ba nga dem waaye amut fi man lu amut fi moom nag ku ko bëgg sonn nga rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi xururun yaati suñ tuwaa neen képp ko yaakaar àjjana te nangoo jaamu yàlla nee waru nga àjjana benn buur la am ci doo ci dugg suñ tuwaa waxul kenn ni la neel ci loolu la neex boo dee dem àjjana waxu ko kenn kenn duñ la fenn la ko bind kenn duñ la maam la ko waxal léeg-léeg na nga dégg gaay ñu naan la benn bis ci ma génn góor gu baax nee na ma laaj ko góor gi ku mu doon suñ tuwaa waxu tukki burkina bi waxu tukki malien suñ maam yi rek ko ko waroon dañ ne la diw la fenn fu mu wax loolu amul ne leen ci lu leen neex bu ngeen dee dem àjjana sëñ bi waxu digliwu ko diglu ko ak njabootam ak njabootam itam nekkuñu ci jaamu yàlla rek ci la newoon biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci lool la newoon ñii mu yoon yari ci lool yi rek la leen ne